ay ayca jërë ngeen jëf mbokki internet yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen bi di fekkee TV ak live Dakar live ñuy amaat mbégte ak contentement bu baax a baax di jàkkaarloo waat ak yéen rawatina tey fi nga xam ne moom la ñuy jàkkaarloo ndax yaakaar naa ñu ngi Pikine bu ñu waxee Pikine nag tali bu bees laa mën a wax wala tali bu mag rek ñu ngi kër Père Babou ménageur ménageur Balla Gaye ménageur Modou Lo woon ndax Père Babou ñu bare bari buñ ko xamee ci Modou Lo lañ ko xamee woon waaye nag lim xanaa déedéet Modou Lo Modou moo mujj. Hmm, wax Tyson ni Balla Gaye numéro Tyson ak Balla Gaye numéro 2 ak Balla gay numéro ndeysaan. minaceur hmm, ñu baree baree bari la ci làmb <laughs> ndax per baabu buñ ko waxee mooy per baabu làmb mooy père baabu boo xam ni làmb la. ndax kenn mënta wax per baabu génn làmb kenn mënta wax làmb génn père baabu kon dañuy bàyyi mu nuyoo waxtaan ak mbokki internet yeeg mbekku làmb père baabu ñoo ngi lay nuyu di la siyaar. maa ngi leen di fay di leen siyaare ci tamxarit bii nu jóge di ñaan yàlla ba mu nekk sunu mujj tamxarit yàlla nañ ko fekkee deween yu bare bari ànd ak wér ànd ak wérle ñu taal ko nag ñun ñëpp wasalaam. Père baabu kañ nga njëkk a ci làmb ak lan moo dugal per baabu ci làmb foofu la ñuy njëkkee xuusal ak yow. waaw kooku kooku bëgg-bëgg la 68 ba léegi maa ngi ci làmb su 68 defe naa ni ñi ci juddu woon sax am na ñuy sët. am na ñuy sët. waaw depuis 68 ba léegi maa ngi. kan nga njëkk a ci làmb. Euh, est-ce que loolu jàppati naa ko mais ñii parce que engagé naa Balla Gaye numéro un engagé naa Aliou Seye. Aliou Seye bu Waalo père Aliou Seye bu Waalo. waaw ñooñu engagé naa leen. Mhm. engagé Balla Gaye numéro deux. Mhm. engagé Rakam mhm. Magam. Pape Cissé Pape Cissé. engagé Tyson maa ko dugal ba ba bu bëreeg Moustapha Gueye. ak mbër yu bëree bëri mënu ma koo lim. engagé mhm. Lac de Guiers mhm. ba mu bàyyi bëree. engagé mhm. Modou mi nga doon wax léegi. Sil Balde maa ko engagé. ba mu joxuma ma doomam. ma yore ko. engagé Dégol. ba mu bàyyi bëre. ba tey doomam nekk champion nekk ci biir làmb ji. yaay manager Boy Niang. déedéet nekkuma manager Boy Niang mais maa doon manager baayam ba ni mu bàyyee bëre. kon euh, bu ma bu ma doon lim du ma du mën naa. ndeysaan père Babou bu doon lim du bu doon lim du jeex ndax gis ngeen ñi nga xam ne ñoom la engagé ñëpp ci wàllu làmb waaye fi may njëkkee ak yow mooy père baabu ko xam père baabu ci ay guddi per Babou Modou lañ ko xamee woon sa diggante ak Modou Lo. sa sama diggante ak Modou dama ne woon dootuma ci wax parce que diggante bu jeex la àndatuñu doon nañu ànd xulawuñu xeexuñu. xaj na dem na ba ànd bi neexatu ko wàññiku na maanaam mu problème yooyu. Mm-hmm. kan moo la boole woon ak Modou Lo biñ ko indi sa loxo. Modou maa ko yar yaaram Guèye moo jëkk indi ay kayiti Modou Lo ci sama loxo. Mm-hmm. kayit yi dafa réer mhm. ma wuta ma ma ma ne ko yaaram yottu kayit yi nga ma joxoon pour Modou Lo sa booy boobu lax laa ko wax xaw ma boobu Modou Lo mhm. ma ko kayit yi ma joxoon pour sa booy bi kayit yi réer na mhm. wutalaat ma yeneen kayit yaaram wutal may kayit yeneen may engagé Modou di engagé Modou ba ni mu bëree ak booy Bombardier mhm. ci boobu la après bi mu bëree Bombardier après la jël jël si bagage am. Mhm. amu amu problème. daa jég saay la téléphone jox ma samay bagage wala daa am ay discussion yoo xam dafa am seen diggante. mosuñoo discuter. kon suñoo discuter amuñu benn problème bu ñu tasee nii ma am ak yéen jàmm doom laa ko def mu def ma bàyyi mhm. dañuy kafre ku ne dem amuñu benn problème man du ma am ak problème bër Mhm. mais mais mais ci biir loolu amul woon kàddu yoo leen werante wala bi ngay jël avancement ak Bombardier da ko neexul wala dafa am lu biir prix la wala yooyu yooyu détail jëlul jëlul jëlul ji jëlul àgg parce que moom moo jëloon combat bi yooyu détail na mu demee ak kii kooku dootuma ci wax parce que mhm. ma sañoon dootuma wax ci Modou xam lu passé nuyu ko rek mhm. ñaanal ko yàlla jàmm li mu jëm ci kanamam gënal ko li mu jóge Père Balla Gaye bi mu jógee ci Modou Lo rek mu Balla Gaye nekk ménageur Balla Gaye sa digganteeg Balla Gaye connaissance bi sama digganteeg Balla Gaye Balla Gaye judduwul booba diggante Double la ak Babou diggante Double ak Babou moo yàgg Balla Double Less nekk na fi lu yàgg Double Less maa ko wutal carte menacée bi sa Balla Gaye sàg jéen moo ko yoroon bi sàg jéen dee ma wutal Double Less carte menacée carte baa ngi fii ci sama néeg ma wutal ko carte menacée mu ne ma man carte jarul ma ko yor bu uhuh. carte menacée bu ñëw rek dugalal bàyyi ma ko foofu ak licence su xale yi bàyyi leen foofu rek bu ma fi nekkul nga dem engagé ji mhm. li mu engagé ji néew na lool mo bu fi nekkul ma dem engagé ji mhm. bu fi nekkee yenn saay sax mun ma demal nga engagé ji mhm. ba yàgg mu ni licence yi booy yëpp dama la ko jox ñeent lañu muy euh, Saliou Sa Thiès ak Balla Gaye ak beneen xale bu ñuy wax Elou ak beneen xale bu ñuy wax Yaya ñoom ñeent yëpp seen licence yaa ngi fi muy yónni xale mu andil ma licence yi mun ma xale yaa ngi noonu ci see loxo man mënatuma dem ci yu bare bari mais comme yaa yaa dendoon ak man yaa nekkoon ak man. xale yi mu ngi noonu ci sa loxo seetal lu ci baax rek nga def ko. loolu moo andi sama diggante ak Balla Gaye. mais en tout cas aussi yor bi nag méttiwul. ndax yor boo xam ne eh, daf ma ko jox ba pare. Mhm. Aziz Ndiaye nekk sama doom. Mhm. gàddul ma leen. Mhm. bu doon maa koy yenu sax dana xaw a diis mais mhm. dañ maa jox bopp ma war a yenul ma ko assis yenul ma ko moo kii rakkam mhm. ak magam Masata Ndiaye ñu yenul ma ko aw ma ci benn lu may def lu may dañ ma dañ may wax defal lii man man leen nañ ko def lii bu xoolee lu ñu xoolee lu baax ñu def ko bu ñu xoolee loo xam ne si jaaduwul ñu bàyyi ko waaye ñoom ñoo ma yenul dañ ma yenul jox ma ma kon dafa woyof tooy daal mais ci père loolu mooy bi nga engagé Balla Gaye engagé Modou Lo doon bëreeg Modou Lo ci combat boobu ak tension bi fi mu tolloon. non amul tension ñun defuñu en tant que koy def tension mais ñun defuñu ko tension parce que itam Modou dafa xool li ko gënal mu def ko. Mhm. man tam ma nekk ci li nga xam ne moom mooy moo ma arrangé moo ma jëme kanam ma def ko loolu amuñu amuñu benn problème. du tee mhm. bu ñu tase man ak Modou benn la ñuy doon. Mhm. Père Babou ñu bari ne li Père Babou ñi naan ci ménageur bi rek muy risque bi nga xam ne ñi neen risque la sax ñi neen du risque. la Gaye mu tegale ay avance jël avance su Boy Boy Niang jël avance su Gris Bordeaux jël avance su Bombardier jël avance su Eumeu ñi naan risque la ñu naan risque ñaan ci ménageur bi laak noo gisee loolu. waaw xam nga ménageur dana dogal. Mhm. mais daf koy ànd ak mbër ma. ak ña ànd ak mbër ma mhm. loola secret lay doon ci biir ñun ñoo koy àndandoo dogal ko mhm. mais bu ñu paree nan bu leen neexee sax ñu wéer ko menacé bi ni moo ko def mhm. eh, du du menacé bi rek moo koy def dañuy ci ànd ba ñun ñëpp ñu d'accord ci te dama mas a toog ak Fallay Baldé mu ni ma <coughs> booy naar booy naar rek la ma naa booy naar man am na benn bis alaaji mboor andil na ma ñetti avance ñetti avance mu ni ma maa ni ko be eh, ñetti avance yi yàlla mu ni ma dañ ma andil avance su perte ne <coughs> pardon andil ma avance su Mbaye jóob bu jandeer andil ma avance su Boy Pula bi mu bëri loon Jurbel te damoon ca nee naa ñetti avance yëpp bëri naa ko xam benn ba mujj bi ci laa xaw a damme muy bu mu bëree Boy eh, Boy Pula te ñu bëri ji Jurbel Pula bu nekkoon Jolof mhm. ba muy ñibbi si mu damm mhm. mais yooyu du ñetti avance ak ñaari avance affaire bi nekkul foofu de mhm. nit ki moo war a xool nit tey war lii dafa nit ñëpp dañoo tànn làmb dañoo tàmm beneen foo mu tàmm bëre mu mhm. tànn mu tàmm bëre mhm. bëre ngemb rek risque la ngemb rek risque la seetaani làmb risque la kon risque yi xanaa day gën a rawante gën a guddante mais jël ñetti combat jël ñeenti combat yow boo demee entraînement da nga bëri bis bi da nga bëri fukki yoon ci bis mm-hmm. mais mais mais tamit ba tey bokkul entraînement ak làmb bokkul mm-hmm. ndax Balla Gaye làmb mystique yi làmb ak préparation bi lamb ak la mu laaj làmb dafa metti waaw la mu laaj yëpp comme danga doon ñaan mm-hmm. ma dafay mel ne ñaan gu nangu la yàlla na am combat yàlla na am combat yàlla indil la ñett kon kay boo doon defaru benn da ngay defaru ñaar boo doon defaru ñaar da ngay defaru ñett. Mhm. noonu dong la amul amul amul amul jafe-jafe de. Mhm. mais est-ce que du à part Fallaye Balde mi nga wax léegi nii ak Balla ñoom ñoo ko mës a def ci làmb tegale ñeenti avance. ci mbër ak dayo bi Balla Gaye toll ak ci tur. ci jamono bu njëkk ba mbër bu am tur bu ne dañ ko parce que booba ba ñi ñi nekkoon di tëgg làmb tudd ñu woon ay promoteur ay borom làmb lañu doon të. Mhm. dañuy xool mbër mu am succès ñu di ko jëkkante. bu ñu ko jëkkantee kee day ñëw jox ko avance ni ko yàgg diw la kële jox ko avance ni ko yàgg diw la ñu xaarante. Mm-hmm. bu bëree kële ba pare bëreel keneen mais léegi. ni làmb demee ak fi ngeen ko teg ak fi mu fi ngeen fi ko nit ñi yóbbu dafa wuute ak lu jëkk la lu baree baree bari mais man gisuma ci benn risque gisuma ci benn risque ndax bu bëri woon ak kenn day wuti bu subaa day wuti waat ba bu jógee ci kooku bu ci jógee day wuti waat kooku kon kaay nga jël ñeenti yi benn yoon mu war ne la ñeenti yi yëpp yéen war a bëree ngeen pare boo bëree ñeent yi nga pare wuti leneen Balla Gaye mu bëree Bombardier ba pare mu ñàkk ko ñi naan Balla Gaye def feebar ñi naan Balla Gaye entraîné wut ñu naan noo gisee baabu Balla Gaye moo xam nga combat mag Bombardier waroon amoon na tuuti feebar mhm. mais itam jomam moo ko yóbbu ci làmb ji mhm. nit bu dana àgg foo xam ne mhm. jomam da ko yóbbu ci làmb parce que bëri naa boole naa fal euh, Balla Gaye numéro 2 ak Boy Kayre am benn waaye sama benn xarit mu jóge fa ni ma ah, mu ci ci alxames ji mu ne ma baa boobu mais ma gis du mën a bëri si dimanche la mhm. ma ngay wàccu deret rek ma ne ko mhm. ah, mu ne ma ne ko kon bu subaa danaa fa dem danaa fa dem mhm. ba ma xëy a àjjuma ma dem gis ko mu ne ma ah bàyyi bala maa laa mën a wax dara bàyyil ba ma dem ci fajar gi ba ñëw ba mu demee ci fajar gi bi mu ñëwee ma laaj ko mu ne day bëre kon nga xam ne làmb yi affaire bi nekkul foofu daal. Mhm. nit dana bëri laa bëri bëriwaale baliseer yu yu bari bëri mbër dana ko bëriwaale. Mhm. ndax jomam ak nëbb ko. Mhm. ba bëre ba pare mais Balla bi mi bëree Bombardier nun ñu xam xam nañ ni dara new fa dañ doon tenter ji sens rek. Balla Gaye mu bëree Gris Bordeaux waajtaay bi metti lool combat bi am tension ñu naan Balla Gaye bu daanoo day bàyyi làmb. ñii naan Balla Gaye bu daanee ak Balla ni mu ñëwee ci boobu préparation Balla Gaye non wax Balla bu daanee Balla Gaye jël ñett ñeenti avance yi jaamur nga ne bu bàllagay bu daanee day bàyyi bëri xalaa loolu wax lu la lu wax lu la neex la rek mm-hmm. et puis daanu warta tax nga bàyyi bëri mm-hmm. turandoom bi ñu mu tuddee boppam muy Balla Balla Gaye ni numéro un mm-hmm. toog na Sénégal ndakaaru fii di bëre di daanu di bëre di daanu di bëre di daanu ba yàgg ñu toog fële mu ñu doon entraîné ci arena cinq combattants mhm. mu ne àll yi man damay bàyyi bëri bëri du sama sens àll mhm. yi ni ko ah nit dëgg xamul fu euh, xamul fu nit euh, sansam ne ku mhm. xamoon fu sa sens ne da ngay xëy jëli ko mu ne ko man daal damay dem ci la jóge dem Espagne ba mu demee Espagne nekk fa ay at xaj na la ko lam ko bëggee woon amewu ko mu ñibbisi waat bi mu ñibbisee ci la daan jëli Birama Coor ci la daan Birahim Ndiaye ci la daan Mbiita Njaay mhm. ci la daan Moor Ngeer mhm. kon euh, sens bi muy wax fu mu nekk mhm. euh, affaire yi du àdduna moom nii rek la da ngay làmbatu ba ba ngay daj da ngay làmbatu rek ba ba ngay daj mais Balla Gaye bi arbitre soufflé Balla Gaye Gris Bordeaux du nekk ci biir làmb ji en tant que ménageur arbitre ne për nga gis Gris Bordeaux xeex ak Balla Gaye ñoom ñaan ñu daje est-ce que Balla Gaye santoon nga ko xeex ci làmb ji en tant que ménageur te yaay mujjee wax ak moom bëre ak dóor la bëre ak dóor la làmb ji tudd bëri dafay am dóor dafay am te it euh, euh, Balla Gaye àndul ak cuuna yoo xam ne nun bu ñu àndee moom bay ñëw bay bay war a ñëw ci làmb bis bi xam nañu bis bi Balla gay dana daan walla du daan noonu lañ koy xamee su làmb mbër di ñëw ci làmb jëm xam dana daanu wala du daan ñàkk xam dana daanu wala du daan mosul am de <laughs> te yaakaar naa ne du am mel naa koo xam bañ ko wax mbër mi man mm-hmm. naa ko ba xam wax ko kenn ci staff bi mais. Mm-hmm. danaa xam ni lii mooy war a am tey ci làmb. noo koy xamee yëg-yëg la secret la boo xam ni yàlla moom ma koy jox. Mm-hmm. ak ñi nga xam ni ñoom laa ko seqal. maanaam saa boo engagé mbër bu naree am ndam di ko xam. waaw bu soobee yàlla bu naree daanu tamit di nga xam fan ñaari fan danaa xam lii dana am wala. gént lay feeñ ci yow wala. non non non non secret la. secret bi maanaam. <laughs> secret la du du lu ñuy wax. <laughs> ah du bëri moom secret mbaa def code. non du lu ñuy wax neexutoo neexutoo mais mais Balla Gaye biñ biñ runkum daje ñoom ñaar ñu première songo première songo bi giri nga gis giri fetal ko ay ku ñu xeex ba génn saaku yi ba arbitre woowaat leen foofu waaw xam nga comme bëre door la bëre door la dañu war a xeex dañu war a xeex bëre man bala maa kontaan ay mbër xeex xeex bu metti bëre bëre bu metti ci loolu lay kontaane ci làmb bala maa kontaan ñu xeex mais bu ñëw rek kenn jàpp daan wala kenn arrière ba daan ñoom ñaar bëri nañu ba bëri bi tas na metti na neex na kenn kenn dawul kenn delluwul gannaaw dañoo xeex ba bëri bi jeex te nee nañu ay mag lañu. Mhm. kañ euh, Balla Gaye judduwul ma bëgg a nekk ay mag. Mhm. doy na waar daal. Mhm. mais ni ñu bëri moom bëri nañu lu ñu waroon def. ah, ah comme nee nañu ay mag lañ ñu bari ne Balla Gaye jeexal na ñi naan Balla Gaye lii bu ci bëreeg Boy Niang sax yaakaar naa ne gëm nañ ne Boy Niang dina daan Balla Gaye ak état wu Balla Gaye. bi ni mu bëree ak Bombardier ak ni mu bëree nii bokk na. déedéet. ah kon kay moo lay xamal ni combat yële yeneen yemu jëm ah na mu koy bëree ak yii bokk. moo loolu mën a bokk. Mhm. ñuy naan jeexal na ñu ay màgget lañ kon d'accord loolu. non non Balla Gaye kañ la mën a màggat yow itam juddu barki démb màggat xaj na wéradi dana dab nit. Mhm. mais màggal Balla Gaye màggul. Mhm. xale bu ndaw la. mais mais mais ci biir combat bi bi Balla Gaye sukkee benn bëtu oomam daw di jàpp foofu tiitoo en tant que ménageur. amoo loo yëg parce que foofu lu mu doon lu mu doon euh, dafa bëggoon gën a mën a jàpp bu baax looloo ko tax mu bàyyi ko pour euh, giri gën ko mën a jege pour mu jàpp mu mën a jàpp li mu bëgg a jàpp loolu la woon. <laughs> Balla Gaye daan daan na fi mu ne nii ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux léegi moog Boy Niang ñëpp a koy wax coow li ñi naan Eumeu Sène lay bëreel ñi naan Boy Niang lay bëreel kan lay bëreel en tant que manager am waaw loolu mi ngi aju ci promoteur bi signante guñu contrat pour diw diw ngay bëreel. ah mais euh, waxaguñu ki wax wax la bu dee bu dee promoteur bi wax na ko wax la rek mais signé guñu contrat ni Balla euh, Boy Niang la ñu war a bëreel wala euh, Eumeu Sène la war a bëreel parce que nun ku ci ñëw rek. promoteur bi d'accord ak ñun ci ku ku ñëw rek par force ñu bëri ndax ñu ngi jël seen avance koo jël avance am kuñ ci kuñ ci jëkk a ñëw rek moom moom ñoo yem ah ñëw andi a seen ak am ni boo ñaa yëpp mais mais foofu dafa bari woon coow papa ndaxte dañ ne woon Balla Gaye bi bari woon coow Boy Niang ne moom la war a bëreel avant muy bëree Gris Bordeaux Gris Bordeaux ne Boy Niang Balla Gaye ne Gris Bordeaux mu amoon ay coow yu bare bare bare yu ci dox ba Boy Niang dem ne du bëreewaat loolu ay waxoon ay wax la rek mënoo jël avance nit ba noppi nit du ma bëriwaat loolu ay wax la woon rek. Mhm. wax yooyu jeex na xaj na passé nañu ko passé nañu ko. Mhm. léegi li ci kanam la ñuy wax. mais en tant que menaceur daal xamoo kan la Balla Gaye war a bëreel. fi mu toll nii bu ma ko xamoon nii du ma leen ko wax. Mhm. non non ah ak ñun nee nañ doomu déggoo ci ngay bëreel de. ah man na nekk waa xamaguma. càppaacoli man li ma xam mooy si dem signé dem CNG signé kayit bi ba pare. ah ñii dinañ am ngeen combat ci boobu combat de. waaw ñoom doomu déggoo bi war na war ma war a bëreeg doomu déggoo bi noonu laa war a bëreeg ama seen ñoom yam <laughs> ñoom yam bëri ji koo ci man a ci mën da bëreel boo jógee da ngay bëree ka ci des rek. kon kay bëri ji rek la. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mais mais ci kaw loolu noonu déggoo def benn sorteem ne Balla Gaye gën a neex a daan ci mbëri Ah, d' accord d' accord loolu bàkku la rek wax la wax wi mbër la xam nga mbër day tàllal loxoom ni nii nii duma seen morom ñii duma seen maas ñii duma seen morom mbër mu ne mu tàllal loxoom loolu lay wax mais mbër moo dégg mu wax ko daanu na ca wetu ñam wax duma seen morom loolu waxin la bàkku la rek mais dañoo gis bi ko déggool waxee bàll Balla Gaye bëreeg Bombardier ay faayam yu bari feeñ ma faay déggoo ma ni la ni mu bëreeg Bombardier ak ni mu bëreeg Gris Bordeaux bokkul mhm. waaw kon na muy bëree du du lu ñuy wax lu ñuy jëfi la bu bis baa yéen ñëpp da ngeen ko bokk seet yàlla nañ ci yàlla yóbbu nun ñëpp <laughs> Boy Niang ànd ak wér <laughs> euh, Balla Gaye ànd ak wér yéen ñi koy seetaan yéen ñi yor seeni sit ngeen ànd ak wér <laughs> ñu bëri ko ci jàmm ak salaam ki war a daan daan ñu xam ni diw moo daan jërëjëf papa sa kàddu gu mujj ana lan ngay tàggatoo xanaa di sant la koy dee wax ko ci kaw di sant yàlla yonent ba si di waxu wax euh, sant yàlla ak yonent ba ak Serigne mhm. rawatina sama bunt ci kër sëriñ Touba muy Serigne Bassirou Mbacké mu mag ma. Mhm. ma ñu ma duppee. Mhm. di sant ahlu làmb yëpp. di xamal di leen yëgal nag. loo xam ne si mi ngi ñëw. muy menacé yi dañu war a def assemblée générale le 4 septembre. man bàyyi naa dootuma nekk candidat. maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk candidat yi yàlla nañu jubóog jàmm. yàlla nañ ci watee watee watee jàmm. ki war a gañe gañe man dama def juróomi mandat. ki ba ñu safe sose bureau bi en ba léegi nit mosu cee def juróomi mandat. ma def juróomi mandat. dootuma wate ak samay doom ak samay sët. di tàllal loxo di watanteeg ñoom damaa bàyyi. bu ma watee continuer woon it ña ma doon wateel pour ma gañe ñu ngi fi ba léegi. waaye wate juróomi mandat gañe. Mhm. dem nañ ma bu ma waree wote ji journaliste yi dañ naan jarul dem parce que day gagné rek. Mhm. kon nag loolu euh, da ngay jox yàlla cër. Mhm. jox euh, nit ñi cër. loolu moo tax ma ni man dootuma wote dama leen di war gën a seel assemblée bi rek. ku gagné ñoo xam ne ku diw moo gagné ma ànd ak moom ñu liggéey. maa ngi nuyu Sénégalais yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoom laa seqal làmb. di nuyu aussi sama doom sama rek Assis Ndiaye ak waa këram. di nuyu aussi Serigne Sidi Alxuraan. Mhm. Mbàkke maa ngi koy nuyu lu bare bare bare bari. Mhm. sama xarit bu baax la di nuyu aussi. Mhm. Serigne Abdou Karim Mbàkke. Serigne sànq rek la nu mujj a jokkoo muy nit ku baax. ndeysaan di sama xarit. ndeysaan di sama sëriñ ndeysaan maa ngi koy nuyu lu bare bare bare bari. di nuyu aussi sama benn xarit muy Modou Xulle. fépp foo xam ne toog naa ma nga may dimbali guddi pour. pour ma am ndam ci li ma nekk ma ngi may dimbali bëccëg pour ma am ndam ci li ma nekk maa ngi koy gërëm bu baax baax di ko sant di sant nag sama mbokki wàllu Louga yëpp jërëjëf di sant aussi promoteur bi tëggoon làmb ji te fas yéene tëgg yeneen làmb yi ñu jëm ci kanam maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant ñëpp yàlla nañ ko teewe nagani si déwén jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ko père Babou la woon ménageru Balla Gaye gis ngeen nag waxtaan wi nga xam ne yaatal nañ ko moom ci wàllu làmb jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf